الفصل الثامن في إعلامهم أن الله تعالى لم يجب على أحد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين لا يتجاوزه وأن, وأن كل واحد من أئمة هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تبرأ من ادعاء وجوب اتباعه هو وحده في كل مسألة من مسائل الدين دون غيره من الأئمة لعلمهم بأن الاتباع الاتباع العام لا يجب إلا للمعصوم فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق buntu baa ngoog waaw juróom-ñettel masha Allah waaw mu ne kon daf koo def fii i'laamihim ci di leen di xamal mbokk yi anna Allah naka buur yàlla taala aji kaw ji lam yujib waralul ala ahadin ci kenn iltizaami mu taqoo mazhabin ab mazhab muayyanin bu ñu ràññee mhm. min mazahibil mujtahidina ci mazahibil mujtahidina la tajawuz la tajawazuhu du ko weesu mhm. wa an na tekat li mbir ma maanaam mazhabu maanaam nekkoon maanaam li nga xam ne moom mooy moom la wax fii mooy yàlla warat farataalul ci kenn ne ko obligatoirement da ngay nekk ab xanafi wala da ngay nekk maliki wala da ngay nekk shafi'i wala dangay nekk xana xa xambali ba masala bu ñëw rek ca ñooña rek nga war a yam seen mazhab ba waru ko weesu wa anna te li wér bu mooy daf lay jàngal tamit ne kulla waahidin képp kenn min a'immati ci imaamu haadihil ummati bi le xeet radiya yàlla na gërëm allah bur yàlla taala aji ci ja anhum ci ñoom ñëpp ajma'ina mboolem seen kenn ku ci nekk ci imaam yooyu tabarra a dafa deñ min ad-du'a ci woote wo wujuba waru ittiba'u topp ko moom wax dafa moom kenn fi kulli mas'alatin ci bépp mas'ala min masaa'il diine ci mas'ala yi diine yi mm-hmm. duna ghayrihi bàyyi fi ñeece des wóorlu fi maanaam kon daal bi imaamu diini yëpp mooy imaam Malik imaam Shafi imaam Ahmad imaam Abu Hanifa imaam al-Awza'i imaam Sufyan ath-Thawri ibn Uyayna rahmatullah al-jami ak ñeneen ak ñeneen waxuma waxuma la seen taalibe yi bokk ci ngir yi ñoom ci seen bopp amul kenn ku ci ne masala bu ne da nga maa war a toog ah ah déedéet bàyyi fi ñeneen ñi ci imam bi an li ilmihim ndax li loolu lu ko waral li ilmihim ndax xam nga ñu xam ne an bi an na ci li mbir te mbir mooy al ittibaa'u topp al aamu bari aji matale ji gis nga xoolal ci nuskha bi mhm. inam lañ bind inam lañ bind al am la nak manam ba di matale de nga al ittiba'ul am top gari di matale la yaji warul illa lil ma'sum lu ki nga xam ñeal ki nga xamante ne dañ ko ñongal moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom kesse nga xamante ne top c'est sûr que du def du juum koku rek lañ ne top gu matale gi koku mom lepp lu mu wax bo defé contraire bi def nga lu bon mom rek la sallallahu alayhi wasallam ah ok wa lol moy chapitre lol moy kii mu ne fa aqulu ma nga waxo billahi te chako ndimbal ci yàlla taala aji kawe gi te xamna ni ci mom rek lañu meuna amé at amee ak tawfiq dëppale gi waxuwate mom bur yàlla al hadi moy aji gi di yàlla ñu gindi bi man ni ci xéewalam ila sawa tariqi ci yoon bu jubbi yàlla nañ ko yàlla defal ñu nit ba mbir yi leer insha allah buñ génnee ci chapitre bi insha waaw waaw c'est que xam nga Cheikh Omar radiyallahu anhu lii kéemaan ci moom uh-huh. mooy chapitre bi maanaam le simple fait mu nekk nii rek maanaam moom chapitre bi tur bi ni mu koy tiitree rek hmm. day doy sëkk sëkk sëkk pour nga xam ne. te day susciter sa sa voilà ba ngay bëgg a xam lan lay. lan moo nekk ci biir boo ci duggee rek da ngay sentir vraiment. yal na yàlla ko yàlla fay. amiin amiin chapitre bi nag bokk na ci chapitre yi gën gudd amaan na bi gën gudd ci téere bi amaan na bi gën gudd ci téere bi waaw parce que xoolal deux ba waaw deux ba trois ci chapitre bi voilà ci bi ci la donc waaw chapitre bu gudd gudd gudd gudd gudd gudd gudd la ah, ah. waaw lii moom lu gudd la mais insha allah taala maanaam kon eh, chapitre bi bi weesu bi daf ko def mu nekk laytaay pour chapitre bi boo xoolee laytaay la pour chapitre bi nii kon boo xoolee li mu la bëgg wax dans tout ça boo xoolee fi mu jógee ci nitu yàlla yi ni ñu mel et cetera ni nga leen war a respecté ba pare booy nga dem aju ci ñoom et cetera day bañ aussi nit ki aju ci benn nitu yàlla di déglu ay waxam bàyyi xel ay jox doxalinam ba pare ngay critiquer ay doxalinam parce que tamit bopp parce que tout simplement yow mazhab bi nga bokk nii lañ gisee et cetera wala nga jàpp ne kooku li mu nekkee baaxul comme la waaja waxoon waa a ñu tudd Baye Niass radiyallahu anhu mu daal di koy doyadal daan ne woy ci masala kii moo def faa xalangu subhaana rabbi loolu noonu la ko tuddee xalangu la wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xoolal jamono joo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mujj ñi dañuy xas di wax lu ñaaw ci ñu njëkk ñi. subhaanallah ah. subhaanallah. loolu loolu moom mooy wane ni dañoo doon doyale mais même ba xataa subhaanallah am na ñe mais eh, dégg naa koo xam ne mais mais ñooñu wax bi di lañ ñoom loolu moom tubrankewul ci ñoom. maa ngi ñëw ma dem ah en tout cas fooroon na daal. subhaanallah <laughs> yal nañu yàlla sàmm ala kulli waaw bit bi dani dani Seydina Usman radiyallahu anhu de toute façon nodd boobu noonu ñuy nodd ginnaaw ak nodd boobu bi daal la dañ ko war a bàyyi mais même al albani albani dañu nodd boobu bi daal la dañ ko war a bàyyi nodd bi ñuy nodd ginnaaw eh, eh, bu ñu waree kii eh, xam nga àjjuma dañuy nodd ñaari nodd nodd bi ñuy njëkk a nodd nga xam ne ni bu ñu ko noddee nit ñi doog a mën a préparer et après ñu doog a nodd nga xam ne bu ñu noddee xutba imaam bi day xutba ñun nodd wala bi daal. mooy bu imaam bi dugg si rek nodd boobu ñu nodd ko. boobu ñu nodd. Mhm. loolu benn nodd la mooy bu mujj am na nag nodd bu ñuy njëkk a nodd. Mhm. dee Sénégal par exemple ay une dégg nodd. noonu bu jëkk ba nag mu ne bidaa la ndax Seydina <laughs> Seydina Usmaan rek ku fi indi radiyallahu subhaana rabbi <laughs> subhaana rabbi xam nga xam nga loolu loolu ah moo tax dégg naa sax ay yeneen sëriñu wahhabi sax yu koy attaqué ci loolu ci waxam jooju parfois ñu tudd turam parfois duñ ko tudd et cetera mais ala kulli haal lu garaaw la léegi nag mu indi deux bunt bii nii pour

ñëw na waaw voilà effectivement dana indi waxu Ibris yu bari donc euh, wax na euh, euh, maanaam ko yooyu yëpp ngir wan la ne la maanaam nitu yàlla yi li ñuy wax bul bul ko juger yow ci sa xam-xam bu néew d'ailleurs dina ko wax ci biir jàng laxdar yi rek defe ne lu laxdar yi waxul loolu du noonu wala jàng non c'est vrai ba même même hatta mën nga jàng ñoom Muxtasar khalil bul defee ne luñu waxul du non de déedéet parfois dañuy gis ñu bok ci mazhab Maliki ba pare gis wax ju nek ci Muxtasar khalil te duñ ci d'accord rahmatullah alayhi duñ ci d'accord léeg-léeg nga gis même imam khalil rahimahullah mom ci bopam beuri na lu muy indi masala daani fihi khilaf wala fihi qawlan wala daal di ñëw daal di xawlaani wala fii fi taraddud wuute am na ci wala ñaari wax am na ci wala déngi déngi am na ci maanaam mooy boroom xam-xamu ngir yi ci boobu seen bopp dëppoo wuñ ci wax jooju lan ngay xalaat nag ci yeneen ngir bu dee ñoom de wuute dëkk dëppoo wuñ ci wax ji kay mooy wax ji leeru parce que bu leeroon boroom xam-xam yëpp danañ ci dëppoo ala kulli xaal kon buntu bi daf ko def ngir mën a question yoy te lu am am solo la wallahi lazim motax buntu bi bokk na ci buntu yi gëna a intéressant hmm? yi gëna mag ci téere bi yi nga xamantene vraiment wa parce que nit ku bëgg xam xam-xam ba paré am téggine par rapport ak borom xam-xam yi bu jàngee buntu bi dina ko dina comprendre yu bari ba paré ci biir dina la wax nit ki ni mu war a par rapport ak <laughs> sàkku xam-xam bi mi sàkku xam-xam et cetera dina ko leeral ci biir buntu bi insha allahu taala kon mu daal ni wax ne qaala wax na acheikh ahmad zarruq rahimahullah wa radiya anhu fii ta'sisi qawaid al usul wa tahsis al fawaid li zawi usul mooy téeram bu am solo boobu ah mu ne latti ba déet topp bu war illaa lu dul maasumi ñeel ki nga xam ne dafa ñoŋ mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu tax lintifaa ndax dàq gi nga xam ne moom la dàq alxata u njuumte an hu wallif ko aw wala boog man ki nga xamante maanaam ko moom ndax moom lan du juum moo tax sallallahu alayhi aw wala boog man képp koo xam ne shahida seede na lahoo ñeen ko bil fadli ci ngëneel li am na ndax lan maski koo xamante ne dañu ko setal dañ koo tagg te ki ko setal tagg ko mooy al adlu ki nga aji maandu kooko adlun ku maandu la ku maandu ku mu taxaw daal ni hey kii de wax dëgg yàlla maandu na nag kii de ku baax la ku maandu la kooku ku maandu la waqat te dëgg-dëgg shahida seede ne sallallahu alayhi wa sallam di am na ci li wér moom ba wóor mooy xayrul yi gën ji xee maanaam maas gi gën ci maas yi qarnuhu mooy maasam su ma topp alladina gaa yi nga xam ne yalunahum ñoo tegu ci ñoom su ma topp alladina gaa yi nga xam ne yalunahum ñoo tegu ci ñooñu maanaam génération bi gën ci génération yi siècle bi mooy siècle am topp siècle bi tegu ak bi tegu mooy trois premiers siècles yooyu mhm. kon nag fa sax kon nag wér na fadluhum la ala seen ngëneel ala tartibi ci toftale wal iqtidaay ak roy gi ñu war a roy bi ci loolu kazalika ni ki noonu kon mhm. yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo gën mhm. moom lañu war a topp ni ki noonu bu ñu topp ñeneen ñi dañu topp ñi bokk ci trois premières générations yi parce que ñooñu yenent bi sallallahu alayhi daf leen wax ne ñooñu dañoo maanu te seen imam yi kon sikk nekkul ci ne mat nañoo topp ñi nga xam ne waa génération bi ñoo jàpp ni ñii ñooy suñuy imam sikk nekku ci ñoo ñooñu mat nañoo topp kon ci kaw loolu ah, moo tax moo tax ñuy wax salafu saalih bu ñu déggee baatu salafu ñoo ñoo tax ñuy wax mag ñu baax ni waaye nag boo ko ni ñu mujj ni dañ ko dañ ko dafa erroné dafa dem ba erroné voilà fi ñu koy utiliser baaxul donc il faut faudra faire très attention voilà yow nan ngay mën a taxawee ne man salafu saalixi laay topp mais ñi dox sa diggante ak salafu saalixi nag ñoo ñan lañ ñan ñoo tax nga am information ci ni salaf saalixi doon doxale noo def ba xam ko ñooñu dox ci diggante bi nga ni baaxuñu yow nga ni ñële rek baax xanaa yow da nga fee baax <laughs> yàlla ñu yàlla sàmm <laughs> donc mu ne waaye nag ah lii am na laakin waaye nag as saxaabatu saxaaba yi ñoom léegi mu ñëw ci première génération bi radiyallahu anhu xam nga ñëwoon première génération mooy génération moom sallallahu alayhi wasallam mooy saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne waaye nag dafa am benn affaire bu am ci saxaaba yi li tax boo xoolee ñun parce que une question peut se poser mooy pourquoi ñun duñu topp ngiiru ibnu abbas radiyallahu anhu lu tax topp ñu ngiiru ibnu mas'ud radiyallahu anhu wala ngiiru ali ibnu abi talib radiyallahu wala ngiiru omar ibnu xattab radiyallahu anhu wala ñeneen non mooy saxaaba yi laa wax saxaaba yi lu tax topp ñu seen ngir voilà lan moo tax topp ngiiru saxaaba yi radiyallahu anhu ngiiru abu hurayra radiyallahu anhu et tax moom la lay expliquer fii mhm. mu ne laakin na waaye nag as-sahabatu sahaba yi tafarraqoo dañoo tàqali ko woon fil bilaadi ci réew yi wa maa kulli fekk ànd ak nekk ànd nekk nag kulli waahidin képp kenn minhum ci ñoom kama qaala kenn ni nga xamante ne mhm. noonu la ko waxee Malik imam mu na Malik rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm maanaam kon ànd na kenn ku nekk ci ñoom ilmun xam-xam boo xam ne fala allah amaan na maa ahadim nekk nag keneen kenn maa loo xamante ne huwa loola naasixun aji nasaxal la maanaam dafa abrogé wa ma al axara ànd ak mu nekk keneen maa loo xamante ne mansuuxun moom la ñu nasaxal moom la ñu abrogé hmm. wa ma al axara ak mu keneen nag moom yor mutlaqun loo xam ne dañ koo joyal dañ koo boyal wax juñ joyal la maanaam d'une manière absolue lañ ko waxe wa ma al axara mu ànd ak keneen koo xamante ne moom mu muqayyadun wax ju tënk la maanaam

wama ah wama al axara fekk ànd nag am yor na keneen yor na fële ca beneen réew moom ma mu sa sasun loo xamante ne moom mooy jagleel mbir mi maanaam moo koy particulariser moo yor mbir mi d'une manière moom dafay traiter question bi d'une manière particulière kama kem ni nga xam ne wuji da noonu lañ ko gisee kasiran lu baree bare booy xool texte yi xadis yi yooyu di ko remarquer bu baax aaya yeeg xadis yi nga di ko xool da nga ko remarquer bu baax mm-hmm. kon nag fa lazima loolu moo tax nag mënuñoo topp mazhabu sahaba yi kessé parce que sahaba yi léeg-léeg ñom benn ci rek lañuy xam ba nopi loolu benn kess benn affaire la manam loolu mom tontu na ci benn raison bi benen raison bi moy li nga xamantene moy le fait que sahaba yi radhiyallahu dajale wuñu seen mazhab ci seen jamono binduñu ko ba dajale ko comme niñu dajale dajalee mazhabu yeneen imaam yi wuñu ko comme tay ibnu Abbas radhiyallahu bo bëggono xam fatawa fiqhiyam yi manam fiqh lépp lu mu xalat ci question yëpp do ko xam amna question yu bari yuñ dajale ci mom mais yëpp do ko xam té kon ce qui veut dire que mënuloo xam exactement par exemple sur sur certaines questions dina am question yu bari yo xam do xam lan mooy mazhabam ci kaw lolu yo xamulo usulum tamit et cetera donc il y a problème loolu motax do ko mën top donc en fait lu tax duñu top saxaaba yi yëru saxaaba yi. waaw mooy période boobu en fait xam-xam yëpp ñu waron dajale ce n'est pas encore fait. voilà. kenn ki day yor li maanaam ay mooy texte yi voilà mooy texte yi njàngale bi Yonent bi sallallahu alayhi dafa tasaaroo woon ci ñoom ñëpp. c'était dispersé c'était ci seen biir. voilà maintenant c'était pas encore rassemblé. wuñ ko woon. loolu mooy benn raison bi beneen beneen raison bi mooy saxaaba bi ci jëmmi boppam ni mu daan doxale lépp kenn taxalu ko. radiyallahu anhu voilà mm-hmm. moo tax nag kon mu ne ah, fa lazima kon war na al intiqaalu ñu tox toxal. li man ñeel ñi nga xamante ne baadahum ñoo nekk seen ginnaaw isa jamaa bu ñu dajale bu dajale al mutafarriqu li li tàqalikoo ci loolu yëpp no isan maanaam fa lazima war na al intiqaalu toxu toxal li man ñeel ñi nga xamante ne baadahum ñoo nekk ci gin seen ginnaaw isan bu boobaa ah dana war ñu toxu jëm ci ñoom ndax la jamu ngir ñu mën a dajale al mutafarriqu lay aji tàqalikoo min zalika ci loolu yëpp wa dabtu ba pare ñu mën a takk ar riwaayatu la ñu soloo fi maa hunaalika ci li nekk fële walakin waaw mooy la nekk feneen maanaam mooy lan mooy kon génération bi ci tegu ñoom lay daal di war nag ñu dajaloo ngir mën a dajale xam-xam yi nga xamante ne moo tàqaliko ci ñi ci des mm. ba pare ñu mën a takk mën a takk bu baax li nga xam ne moom la ñu soloo moom la ñu rapporté mm. partout yi dispersé yépp ñu mën ko jël am fuñ ko tak mo xam dañ koy mokal ci xel ci mu xol wala dañ koy bind ci tiiri mais dal foog ñu dajale ko lakinnahum way ñom nak lay lam yastaw ay bu ñoom dajalewu ko won ba tak ko ba matal ko fiq xan mu nek xam-xam bu fiq bu leer ci côté fiq rek dajale wuñ ko won mataluñ ko won noonu maanaam ñom niñ ko doon dajale motax tax nga gis première génération yi parce que euh, comme ni ñu waxee woon maanaam euh, chapitre yi ni spécialement parfois day am explication yo xamanteni day gën a détaillé tuuti voilà maanaam euh, da ngay xam benn affaire mooy jamono jooju pour moo tax première génération yooyu mooy génération saxaaba yi radiyallahu anhum doonu ñëwoon bind xadiis yi di ko dajale dëgg la ku mel ni Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom doon na dajalee doon na bind xadiis yi d'ailleurs moo tax foo déggee li ñuy wax saxiifa saxiifa muy téere boo xam ne xadiis yëpp ci même isnaad bi la am même benn isnaad rek la xadiis yëpp benn isnaad kese la loolu hadith sahifa bi ñu tuddee saxiifatu Amr ibn Shuayb an abiihi an jaddihi foofu noonu la mel Amr ibn Shuayb moko jele ci Shuayb mu jele ko kon ci papam Shuayb bi tuddu Shuayb ibn Muhammad Muhammad bobu muna moy moy mooy doomi Abdullahi mooy Muhammad kon ibn abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu kon bu ñu nee cha kan. saxiifatu Amr ibn Shu'ayb an abeehi an jaddihi xamal ni saxiifa bobu manam hadith yoy yep même isnad bobu lañ am. même chaîne de transmission bi la bu yek ci ba ci Amr ibn al-As radiyallahu anhu maanaam moom la mam mom la sëtëm sëtëm muy Shu'ayb ba Muhammad domam mais sëtëm Shu'ayb mom han mo jël téré bobu ci manam léegi nag li li tax nag par exemple ñuy douter ci parce que bu doon bu doon wóor na ay Shuayb dafa déggee ci maamam téere boobu konontoon mën na nekk asaxul asaxul asanid isnaad yi gën a dëgër mais problème bi mooy borom xam-xam yi dañuy wute ndax ndax su ndax Shuayb ah déggee ci maamam wala dafa jël téere bi rek wala maamam daf daf ko jox téere bi rek le fait que nak loolu ñu ciy duute motax isnad bobu isnadul hasan la ci waxu borom xam-xam yi li ci gëna a dëgër insha allah rahmatullah alayhi moom mooy mazhabu ñom bukhari ak ñooñu rahmatullah manam maanaam daal mëneef na koo layee xam nañ ni mom hadith yi nekk ci sahifa wo manam genre kaye la mën nañ ko tuddé noonu wa kaye bobu li ci nekk yi xam nañ ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu moom dégg nako ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bindu ko mais problème bi fi mu nekk moy le fait que shuaibou ndax dégg na ko ci maamam wala dégg wu ko ci maamam pour mën ko jàpp en tant que xadis bu dëgër léegi nag amr loolu la tax amr moo tax amr ibn Shuayb moo ko jëlee ci papam papam jëlee ko ci maamam moom pa maamu maamu amr voilà voilà léegi nag li taxoon mu tudd loolu noonu mooy kon amr ibn al-As moom radiyallahu anhu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom da daan Mm-hmm. loolu xamoon nañ ko ci moom mm-hmm. maintenant euh, mais problème bi mooy le fait que saxaaba yi daan bind bariwuñu woon saxaaba yi lu ci ëpp dañ daan mokkal kese moo tax am na benn waaye bu ñu doon neexal naan moom danaan ànd ak Alaaji Mansour radiyallahu anhu mais dafa amoon xam-xam bu bari gars yi nag di yéewu ci moom ci waajooji te dañu jàng waa ji ah yorul kii yorul aloo jàngul benn day ñëw rek toog di déglu gars yi di yéewu kii nan la nan la amee xam-xam nii ñu ne aladi Mansour ni len radhiyallahu ni len mais c'est parce que ki mom day deglu day ba bare day mokal sahaba yi nan lañ def sahaba yi dañu amone ay kay ak ak i bigee feuy amuñu ko dañ doon ñew di fekk di deglu di japp di takk dañuy mokkal waaw voilà sahaba yi non lañ jangé <laughs> hmm. bi radiyallahu ba bare di and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam di jëf ñuy jëf muy muy ñuy xol lool la sahaba yi gën ñoo xam li tax saxaaba yi gën ñoo xam radhiyallahu gën ñoo mokal gën ñoo man gën ñoo lool ëpp ñu xam-xam ci lool lu ci lu ci bëri dafa aju ci lool am na yeneen yeneen paramètres yu mais loolu dafa tey ci yoon mooy le fait ñu doon gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muy wax di def ñuy gis di ko toppandoo di def la même chose loolu dañuy mokkal bëri xam-xam <coughs> loolu moo ko indi voilà léegi nag génération boobu noonu amul woon kon amul woon maanaam ñu woon di bind ñoom rarement ñoo doon bind comme comme li ma la wax sànq Abdullah ibn Amr ibn léegi génération boobu bi mu weesoo bi génération boobu weeso ñi ñëw seen ginnaaw mooy taabi'i radiyallahu anhum ñoom tamit ñu ëpp ci ñoom da am na ñu ñu daan bind mais ci ëpp ci ñoom dañ daan mokkal aussi ci lañ commencé toppatoo affaire isnaad yi mooy parce que isnaad première ki ko njëkk a tudd mooy Muhammad ibn Sirin rahimahullah moom moo wax ne. bu njëkk ba ku ñu daan wax wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ la daan déglu mais léegi bi ñu commencé gis ne gars yi dañuy expliquer rek ci lañ commencé nag di laaj ne <laughs> léegi mu ne sàmm na rijaalakum indi ay conditions voilà tuddal leen ma waaw kay tuddal leen ñu seen gars yi mhm. ngeen wax ñu kan moo leen wax loolu après ñun ñu xool boo leen ñu tuddalee ni man lii maa ngi ko déggee ci kooku déggee ko ci diw bu boobaa ñu daal ne ah d'accord kon nañu bind

wa xawna ñu mag tuuti ñooñu ñom Hasan al-Basri ñom Muhammad ibn Sirin ñom Ibrahim an-Nakha'i rahmatullahi alayhi ñom moy génération bobu non donc ñooñu ñom ñoo commencé won di wax isnad di di déglu gaay parce que il faut ngeen wax ñu seen ay isnad legi nak bi gaay di commencé loolu jamono ya Omar ibn abd al Aziz radhiyallahu anhu moy premier siècle bi parce que premier siècle moo ñu mom lañ wax ne mom mo rénover premier siècle bi parce que ñom Omar ibn Abd al Aziz radhiyallahu anhu ñom ak ñom imam Malik fouf tout xaw nañ leen mag parce que mom ak ñom Zuhri ñoy xaw ño xaw tolo wa imam az-Zuhri rahimahullah ak ñom Abu Bakr ibn Hazm rahmatullahi alayhi ñoñu non ñoñu lu bindoon moo tax Omar ibn Abd al Aziz radhiyallahu anhu mo ñëk bok na ci rénovation yu mak yi mu def première rénovation moy ñuy julli heure loolu la jëk def parce que bo Banu Umayya biñ ñëwé ñëwee daanoo ñu julli ci heure biñ nekké première génération te loolu mooy siècle bu njëkk bi moo ñuy wax ne kii rénové premier siècle moy Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. doomu kan la kan mooy waajuram. surtout surtout surtout ibn Abdul Aziz Abdul Aziz <laughs> mooy papa maanaam surtout Seydina Omar la radiyallahu anhu. Euh, Omar ibn Khattab wa radiyallahu anhu. voilà Omar ibn Khattab moy jur maamam waaw moo jur papam pa moy jur mamam voilà Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moy jur mamam hmm. légui Omar ibn Abdul Aziz boobu. voilà radiyallahu anhu mo moo njëkk a bokk na ci yu baax yi mu def bëri nañ mais bokk na ci moom mooy xam-xam yi mu doon bind comme ni ko imaamul Buxaari waxe rahimahullah Abubakar ibn Abi Shayba indi na ko ak euh, Abdurrazzaq ci seen musannaf rahmatullah alayhima mm-hmm. indi nañ ko pour kii maanaam euh, euh, kii kii mu tati mu bind gars na leen xool leen mu ne dee leen defar ay jotaay yoo xam ne da ngeen ci jàngale xadiis yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mu daal xool leen li nga xamante ne moom mooy li yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàng doon wax sa hadith yi taxtaaroo ci dëkk yi ngir di ko bind bind leen ko loolu moo tax ñu njëkk bind moo tax uh, moo tax imam az moo gën a siiw ci ne moo njëkk a bind téere bu ñu bind ay hadith mm-hmm. te Omar moom la Suyuti doon wax awwalu jaa ah? أو أو أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمير له عمر ما لم تجك بند حديثي بند جيه تالي جوجي وانت صحابة إلى دارهم أكتب عيو ماتي موي كان موي ها ابن شهاب موي الزهري بس كان نقول تدو محمد ابن مسلم تدو نقول ده كان تلا أبو بكر مي لودا نقول ابن شهاب ده ما مملا ما ماتوا ما مملا محمد لا ابن مسلم ابن Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab motax manam mam bobu lañ ko doon dàqantale az-Zuhri liko wax ñu tax wax az-Zuhri nak moy mom mamatu mamata mamam yi Zuhrata la moy moy mok mok yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk maam ci wàllu yaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que mom moy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Harith ibn Zuhrata yeneen bi saa salaam mooy Muhammad doomu ah mm-hmm. ah Aminatu mm-hmm. <laughs> di doomu wax bi mm-hmm. di doomu Abdu Manafin doomu Zuhrata d'accord donc en fait euh, imam al-Zuhri voilà euh, c'est un descendant du prophète non euh, mbokam la ci walu yaayam mbokk mbokkam la ci walu yaayam voilà voilà si tu remontes voilà soo remonter mais ci zuhrata moo tax ñu naan ko az-zuhri mooy ki nga xam ne dafa askanoo ci zuhrata rahimahullah donc imam boobu moo nekkoon imam waa at jamonom parce que moom moo doon noon fuqaha as-sab'a Madinatul Munawwara dafa am juróom-ñaari borom xam-xam yoo xamante ne ci jamonoy taabi'i yi bi fi saxaaba yi jógee radiyallahu anhum ñooñu xam-xam yépp ci ñoom la doon tourné moo boo bëggee xam ci ñoom ngay def juróom-ñaar ñu tuddee leen fuqaha as-sab'a waa Madina hmm. imam az-Zuhri nag moo nekkoon seen moo nekkoon moo moo doon seen xam-xam ñoom ñëpp en même temps moom rek nag mooy ci nga xam ne dafa doon seen xam-xam ñoom ñëpp en même temps euh, am na Sa'id ibn Musayyib Urwa ibn Zubayr Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn euh, kii euh, Xaarijata ak sa kii Sulaymaan ibn Yasaar ak Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab ki ci des moom dañ cee werante ci seen ñoom ci seen biir hmm. waaw maanaam muy Aboubacar ak kii la euh, Aboubacar ibn euh, Abdourahman ibn Awfin voilà après Salim moom moom lañ werante ak moom ndax Salim dañuy wax ne Salim la wala Salama wala voilà maanaam ñoom dañoo werante ci ci ñoom mais mais amaan na Salim la mooy doomu doomu Abdallah ibn Omar ibn Khattab hmm. waaw mais ñooñu <laughs> juróom ñaan ñooñu nga xam ne ñooy fuqaha as-sab'a. ñoom ñëpp seen waaw ñoom ñëpp boo leen xoolee seen kii lañ waa kër waa saxa doomu saxaaba yi lañ daal Sa'id ibn Musayyib nag moo ci gën a màgg comme niñ ko doon waxee keroog léegi wax dëgg ay Urwata ibn Zubair xool Urwata ibn Zubair ibn Awwam moom tamit surtout Abu Bakr Siddiq la daan Muhammad ibn Abdullah ah sax la Qasim Muhammad ibn Abu bokk. Qaasim Muhammad moom mooy doomu Muhammad ibn Abubakar moo am waa kër Abubakar rek famille boobu <laughs> gis nga leen hmm. voilà voilà donc euh, euh, ala kulli donc pour pour mën a continuer donc ñoom moom imam az na rahimahullah bokk na kon moom ñoom ñoo ko njëkk a bind ñoom nag moom bi mu bindee téereem yooyu noonu ak ñeneen ñi ci des ñëpp ah noonu ñoom ñoo bind d'ailleurs sax dëgg-dëgg xamuñu kan moo njëkk a bind mais nag lii borom xam yi gën a njort ne ki njëkk a bind amaana mooy am na ñu ne Aboubacar ibn Hazm bi am na ñu ne déedéet kii la kii la Zuhri la rahimahullah déedéet <laughs> non non non des fois dañuy ñuru tur <laughs> ah la voilà <laughs> kene kene Abu Muhammad la tudd. Ah, ah. Euh, Ibn Hazm bële ah, Andalusi <laughs> kooku quatrième beneen quatre cent les années quatre cent la dund. voilà donc léegi léegi. grande différence. ah oui. Euh, voilà boobu affaire voilà ñëwagul en Espagne hmm. donc euh kii kon ñii bi ñu euh, euh ñom ñëpp ñu tassaro ci dëkk yi léegi nak après seen ginnaw ki njëkk ñi njëkk bind mu am ñeneen ñu ñëw. juste cette génération bob moy sen talibi ñom moy ñom imam Malik ñom Ibnu Uyayna ñom Sufyan Thawri ñom et cetera ñom al Awzaa'i ñom ñoom kii Hashim kii Hisham bokk ibnu ibnu Bishr ah ñoom Abdullah ibn Mubarak et cetera rahmatullah alayhi ñom Ma'mar ibn Rashid ak ñeneen rahmatullah al jami' ñooñu noonu génération boobu. mooy génération ñoom Malick. waaw mooy ñoom Malick ñëpp ñoo xaw ay maasal mooy taalibe yi ñu njëkk ñi waaw ñu njëkk ñi nag fekk nañ saxaaba yu mujj yu yu ndaw maanaam ñi njëkk bind bind boobu noonu ma dajaloo boobu noonu ñoom fekk nañ saxaaba yu ndaw yi ay taalibe yi saxaaba yu ndaw yi lañ ñoom Anas ñoom Ibnu Abbas ñooñu moo tax ñuy wax saxaaba yu ndaw yi mooy ñoom Anas ñoom Ibnu Abbas ñoom Abdallah ibnu Umar voilà waaw wala boog lu ëpp ci ñoom daal donc moo tax ay taabi'i na ñoom seen génération bi ci tegu mooy ñi ma la tuddal sànq ñoom imam Malik nag bi ñu ñëwee dañoo njëkk bind téere yi mais en ordonné ko ci ay bunt loolu nag moo tax mooy moom la Suyuti doon ne wa awwalul jaami' anil abwaabi jamaatun fil asri ziqtiraabi kabnu Jurayj wa Hishaam Ah, ah, kam ni Jurayjin wa Hushaymin Malikin ah, wa Ma'marun wa walad Mubarak Hushaym laa bëggoon wax Hushaym ibnu Bisr maanaam ku nekk boo ñëwee génération bu mu taxaw yow da ngay def leneen ngay kay loolu moo war waaw ku nekk fu mu taxaw mais ñun duñ def loolu ko nga xool fu mu kii nga mottali waaw ñun dañ naan amuñu morom rek deex na duñ leen mën a def déedéet comme ça comme ça génération bi bu ñu ñëw Muhammad waaw jëriñoo ba pare ñoom ñu def leneen <laughs> donc ñii ñoom biñ ñëwee ñu ne ah gars yi ñee ñoo ñu raw fuuf ñun mënuñu mel ni ñoom xam nga dëgg la ñoo leen moom waaye nag <laughs> waaye nag waaye dañuy profité ci seen xam-xam amaan na mu am ñu excellence ci ñoom ñu raw ñi ah loolu mm-hmm. moo tax nag euh, kon euh, euh, moom la moom la wax mu ne kon ñu njëkk a dajale affaire yi ci bunt moo tax imam Maalik mooy njëkk a bind mu watta moo tax téere boobu mooy téere bi njëkk a bind ci xadis mu topp buntu fiqh yi mooy téere imam Maalik bi mu watta bu imam Maalik moo tax am solo ba noppi tamit ci côté fiqh moo tax téere la te kooku al-Kandahlawi bi sharh mu watta moom Hanafi la rahimahullah mais mu ne téere bi gën a mag mooy mu watta bu imam Maalik <laughs> te moom Hanafi la <laughs> rahimahullah ibn kon mu ne kon ki ko njëkk a dajale mooy kan ñooñ la mooy mu ne at mbooloo lañ fil asri ci jamono joo xam ne ñoom ñoo bokk jamono zuqtira bi dañoo jege wantoo ci ay at mooy kam na Jurayj comme ibnu Jurayj mooy Abdul Aziz ibnu Abdul Malik ibnu Jurayj waaw ca Makka wa Hushaymin mu ibnu Bishr ca déedéet ah, déedéet misra déedéet baax ma maa euh, euh, fàtte naa sax euh, fàtte naa ko hmm. waaw mais mais jàppoon naa ko instant bi nii laa ko fàtte dëkk bi nan la tuddati waaye mais xam naa ko fàttali ko Malik ibn Anas fan Makka Médine waaw kay Médine boobu moo xamuloon hmm. <laughs> <laughs> ah. ak Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid Yaman waaw Ma'mar ibn Rashid moom Yaman la ak ibn Abdullah ibn Mubarak warul Mubarak Abdullah ibn Mubarak bu Maro Xuraasaan waaw kan moo nekkoon ay Iraq ke maa wara an-Nahr la woon ñi Hushaym ah Kufa kan moo fa nekkoon Kufa ñoom Sawri ñoom et cetera maanaam dafa tudd exemple ñooñu rek ñoom Sufyaan ak Sawri nga foon et hmm. mooy Sham شام آه آه شام الأوزاعي له فقيه الشام مو الأوزاعي رحمه الله <laughs> ما نعم نيو آه، آه، آه، ما نعم عمدا اي اي اي كينو كنت نيك فغاني مي بون بريف بريف ما بور واخ لا لول لا دونك جينيراسيون بوبو ньоญو بي نيوي ابري ньоم جينيراسيون ньоم شافعي ньоญو رحمه الله باسكو سين طالبي لي اك ني ني ام ني ني نيكال بور ريزومي ak ñoom imam ahmad ñoom aboubacar ibn abi shayba seen génération yooyu ñooñu seen génération yi ñoom ay musannafaat lañ ëpp lañ bind ak ay musnad masanid masanid yi ak musannafaat yi lañ bind voilà voilà ni ñu ni ñu wute voilà lan mooy lii voilà donc masanid yi donc mais musnad par exemple ñoom ni ñu ko doon bind musannaf moom bon côté fiqh yi la ñu xool mais ba tey mais dañuy toxal waxu saxaaba yi waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxu saxaaba yi radiyallahu anhu ak waxu taabii yi bu wuute amee surtout moom moo tax musannaf yi ci gën a siiw mooy yooyu bu bu kii Aboubacar ibn Abi Shayba ak bu Abdurrazzaq mais ak am na ñeneen donc ñooñu seen génération mhm. ñooñu ñooy ci gënoon siiw musnad yi nag Abu Dawud ak Tayalisi ñom imam ahmad ibn hanbal et cetera toppal ishaq ibn rahaway imam ash-shafi'i imam abu hanifa sax bindoon na musnad rahmatullahi alayhi ak ñeneen ak ñeneen mais musnad liko caractériser moy ñom téere la yo xam duñ ko top buntu fiqi ñom comme tay par exemple dañ nan dañuy ñëw abubakar siddiq radhiyallahu anhu la solo ci hadith wa moom day indi buntu man limu xam ci ci hadith yu abubakar siddiq radhiyallahu anhu solo yëpp duf ko indi sans bàyyi xel ban tem la hadith bi di wax ak ban tek hadith lay tek ci kanamu ban moom loolu du ci nekk li li li ko préoccupé rek mooy lan mooy na dajale. xadis yëpp xadis yi rek teg saxaaba yi. diwa hmm. ko wax. voilà diwa ko wax diwa ko wax. teg xadis yi ak seen islam ko ci ordre alphabétique def ko ci dara. non am na nag loolu nag après ça dépend comme bu dee bu bu bu bu imam Ahmad bi rahimahullah ordre alphabétique bi lañ njëkk jël. non non non ordre qui fukki fukku sahaba yu magi ah, les plus grands. voilà euh, euh asharat mubashiruna bil janna mooy fukku yooyu. voilà ñooñu nous la dit que jël bi mu leen nous ba après ñi ci dess nak mu def ko par ordre alphabétique. il les plus grands après. après ñi ci par ordre alphabétique. légui par exemple lool non mais dañuy rek environ quarante hadith ñoo ci environ. Eh donc ñom moo tax imam ahmad laa ne sama téere bi dama ko bind pour lépp loo soxla ci diine ngeen mën ko see gisi ji ah waaw <laughs> et cetera donc téere yooyu ñoom dañ ko dajale woon génération boobu donc ñoom noonu lañ doon def même Musannaf ibn Abi Shayba et cetera ñoom noonu lañ def Abdurrazzaq ñoom Musnad yi ma wax Abu Dawud at-Tayalisi et cetera ah euh, euh, euh, Muhammad ibn Abdullah al-Makki te ñu koy wax al-Musnad yi sëriñ imam Bukhari boobu et rahmatullah ñoom ñëpp parce que ñoom Musnad yi la message yi noonu lañ doon bindee dajale wuñ ko woon def ko ci ay buntu fiqh ak yooyu ñoom li leen préoccupé woon mooy nañ suufi xam-xam bi na fi ne fichier ko lépp teg. classification bi dañu wax. classification bi après la ñoom Bukhari bi ñëwee ñoom Muslim nag rahmatullah alayhi ñoom nag ñoo ñëw ñu njëkk a ñëw nag daan ne ah gars yi nañu segg. li wax manam liñu jël ñun motax al-Bukhari rahimahullah pourtant li tax mu bind sahih bi lool la moy dafa tok ben jour Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah ci jotayam mu daan ak ak neexon am ku ñu dajaleel hadith yi wér rek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu dajaleel ñu ko ci benn téere mu ne fofu la loolu rote sama xol ma bëgg bind ci laa dogoone danaa bind saxeex sauf que dafa am différence entre Bukhari ak Muslim ñu sama waxa waxal benn jour nga ne ma wër benn xadis ci saxiix Muslim. moo gën a yomb moo gën a yomb parce que Bukhari li yu muy def day xóot. voilà voilà voilà. non ba pare ba pare day dagg xadis yi fële et cetera voilà da koy dagg daggee ko dugal ko ci feneen wala waaw wala mu indi ko fii indee ko mais bon ala kulli xaalis. da koy indi ci buntu boo xam ne kenn ku ci nekk. lu tax mu indi ko fii. voilà kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk dafa am objectif boo am ci bu précis c'est pas parce que gars yu njëkk yi mënuñu woon def li Bukhari def loolu erreur la bu ñu bëri di bokk c'est pas parce que tamit ñoom muslim mënuñu woon bind comme li Bukhari bindee à part que dañuy wax ne Bukhari moo gënoon a fort ci fiqh muslim donc ce qui fait que kon moom peut-être que mu am problème boobu mais j'en suis pas sûr franchement yaakaar naa ne Bukhari muslim mënoon na def la même chose même ñoom an-Nasa'i rahimahullah moo tax sunan al-kubra bi mu ko bindee daf ko njëkk bind nga xool mu def ko comme ni muslim bindee mais bi mu gisee sahihul Bukhari bi ci sunan bu ndaw bi mooy bi ñu yor al tabax dañ koy xam al-mujtana moom tamit dafa yor daf ko bindee comme ni al-Bukhari doon bindee ba pare bindee en même temps comme ni muslim bindee maanaam mu boole leen. ak ñaari voilà ñaari méthodes yi. rahmatullah hmm. mais pour wax la ne manam kenn ku ci nek ci objectif la al-Bukhari bu ñëwee rahmatullah alayhi mom daf ni ba pare tam dafa gentone mu ne dafa gentone yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxaw mu jël jaasi taxaw ci kanamam di défendre mu xam kon mu xamne day da défendre sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam wane lu wér ak lu wérul ci yooyu mu daal bind sahih et cetera par exemple mom mu ñëw dajale yooyu comme mom téré yi ma la wax sank yi ma la doon tuddal ak yu mel ni ñom ñoom la dem jàngi dajale ko bi mu leen dajale soloo leen ci isnaad bu dëgër xool xadiis yi ci gën dëgër mu indi ko ci téeram bi xadiis yi parce que xam nga ñoo boo xoolee ñu njëkk ñi kon ñoo dajale xadiis yi ci àdduna bi mm-hmm. mais saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom comme dañoo tasaaroo woon doonuñu woon mën a jàngal ñépp mm-hmm. kenn ku ci nekk day am rek groupe booy jàngal ñooñu ñooy jàngal ñeneen am ñu doon wër nag ci àdduna bi pour mm-hmm. voilà et pour jànge ko ñooñ mooy génération yooyu léegi ñooñu nag moo tax da nga ci daal gis ñu bari ñoo xam ne mais yu bari lañ daan mokkal comme az-Zuhri la comme Shu'ba et cetera ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nee na man kenn ku ci ne wax na ko masuma bind lu weex ci lu ñuul te nit masuma wax ba pare man ko répéter li nga waxoon ki may déggee mbir mi ni laa koy mokkal <laughs> euh. waaw kon loo ko wax mu moom xam na ne jeex na takk na ko déggoon musuma wax musuma bind lu ñuul ci kaw lu weex maanaam mooy musul di dégg sëriñ bi wax mu naan naa naa jël na déedéet te nit musu ko wax mu ne ko euh, répété waatal li nga waxoon te ñooñu ñu bari lañ woon ci génération yooyu. xam nga jox naa la keroog exemple imam ahmad rahimahullah na mokkal na un million de hadith mais xolal 1 million hadith yo xamantene waxuma la texte bi mais isnad yi ba pare nga wara en même temps nga wara xam isnad bi kenn ku ci nek ka ne nga xam dundum ba xam ku wér la war wérul nga xam acte bi nga mëna jox koka ak acte bi nga wara jox hadith bi ak fiq ba nek ci biir hadith ba lang nga ca war jàngate ak yoy yëpp lolu nga defé ne xaj na ci dund bo xamantene comme suñu boss la loolu nit ki su amul barke vraiment ah. <laughs> benn xaddi sa doog ma waxuma laa gën a benn benn benn benn benn. <laughs> yal nañu yàlla sàmm. amiin donc génération yooyu noonu lañ defee après ñoom imam muslim laa ñëw def à peu près la même chose mais sauf que d'une autre manière boo loolu tax ñu jóg imam Abu Dawud rahmallah ñëw daal di gën a alléger chartam pour indi yeneen xadis yoo xam ne nekkuñu ci Bukhari ak Muslim. comprendre imam an-Nasa'i ak imam at-Tirmidhi ñoom tam rahmatullah alayhi ñëw et cetera kenn ku ci nekk sa méthode moo tax kutubu sitta yi mooy siis yi ak boo xoolee daw doo xam sax ban moo gën a baax sa morom da ngay yéemu ci yàlla nit ñi def rek. mooy seen seen sunan waaw moo mooy Sahih Bukhari bu ab bu Muslim bu Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah rahmatullah mais doo xaw a xam surtout cinq yu njëkk yi doo xaw a xam ban moo gën su moroom ne tellement niñ leen defar dafa baax. donc pour pour kii la maanaam moom li mu wax fii loolu la maanaam kon mu ne première génération boo comprendre li ma la wax kon di nga mën a comprendre ñu continuer ci li li li li li li mu wax mu ne kon nag laa laakinnahum waaye ñoom maanaam mooy deuxième génération bi lam yastawibu dajalewu góoñu wooñu ba man koo takk tënk ko fiqan ci wàll xam-xam fiq wa in at donte rod na lahum ñeel leen ba'du zalika lenn ci loolu maanaam donte am na lenn ci loolu luñ ci jàpp al intiqal toxu li man jëm ci ñi nga xam ne baadoxum ñoom ñoo ci ginnaw ila saadi si jëm ci 3e génération bi is ndax lan jam azalika dajale loolu ndax dafa war idan kon bu boba dafa war ci ñom jam azalika dajale ko wa dabtuhu tek ko wa tafaqquhu wa tafaquhun fihi ak xam fiq ya ca nek xefsan ci mokkal ko wa dabtan ci takk ko wa tafqihan ak mën koo takk ci côté wa tafaqquhan boo xam ko takk ko ci côté fiqh mhm. moo tax falam yabqa desut li ahadin ñeel kenn xayral mhm. amali lu dul xanaa jëfe rek bi maa ci lépp ci li nga xam ne istambatuhu ñoom génnee nañ ko ci maanaam déduire nañ ko ci xam-xam yooyu léegi loolu rek a parce que trois génération yooyu ñoo def liggéey boobu mhm. moo ca ci fin wu troisième siècle ci troisième siècle bi noonu bi muy jeex ci la affaire yi ci la maanaam dajale xadiis yeeg yooyu moo xoolee ñoom ñëpp ci trois générations yooyu lañ ñëw mm-hmm. wax ko moo tax dara désu bi lu ñoom la ñu jàngoon déduire ko nga ñu jëfe ko wa qabul ak nangu maa lépp loo xam ne absolu cësal cësi laayal nañ ko li ñu jël def ko comme fondement comme méthodologie nga jàpp ko waatamadu te li nga xam ne sukkandikoo nañ ci nga sukkandikoo ci loolu wali kulli ñeel na nag bépp fànnin fànn fi hada ci loolu li zalika fi zalika fi hada al qarn bokk ci boobu la jamono maanaam siècle yooyu noonu siècle boobu fànn bu ne ci xam-xamu diine yi am na ci ay ay immatun ay imam yoo xam ne mashhurun siiw na fadluhum seenu ngëneel elman ndax xam-xam gi ñu amee wa waraan ak sàmm gi ñu sàmm mu jox la exemple ka malikin keem imaamu malik والشافعي الشافعي واحمد الاحمد والنعمان النعمان موي نعمان ابن ثابت موي امام ابو حنيفه موم نعمان لتود ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم عن الجميع ميكي خمو مرو خمو كان موم موي امام ابو حنيفه اكو دا غاي ليرال واي لا لا لا نعمان داي كي نون لا تود امام ابو حنيفه Norman la tudd Norm ak Norman ibn Sabit. waaw parce que ñun ñun ñu xam. ah voilà moom la lay wax kon mooy ñeenti ñooñu ay imam la ñu woon li fiqh ci côté fiqh ci wàllu fiqh. wakal Junayd ak ku mel ne al Junayd imam Junayd waa Maaruf ak Maaruf comme Maaruf al-Karxi ak Bishr bi ah. ñooñu li tasawuf ñeel tasawuf. tasawuf kon lii ñoo ci nekkoon imam yi ci jamono jooju wala boog ñoom ay imam lañ ci woon ci jamono jooju ah parce que lu ne la ak xam-xamam ni ñuy ni ñuy lan mooy wàllu fiqh ni ñuy appliquer diine ji xam nga ñee amoon nañ tasawuf d'ailleurs boo xoolee seen bind yeeg seen téere yeeg seen wax yi comme Daawuda at-Ta'i bi nekk ci isnaadu Cheikh Tidiane radiyallahu ba pare nekk ci isnaadu ñu bari ci tariqa yi Daawuda at-Ta'i bi imam Abu Hanifa moo ko jox tariqa imam Abu moo ko yar moo ko jàngal moo ko jox tariqa ba pare ne ko beru mu beru nekk imaamu jamono xam nga ñoom xamoon nañ ko imaamu Maalik boo xoolee wax yi muy wax naan ah ah, ah man tafaqqaha bilaa ah, walam yatasawwaf fa huwa ah, kii nu mu am na nu mu ko فهو فاسق دني ومن تفقه ولم يتصوف فهو فاسق ومن ت... أه؟ وفقد فسق له ولا فقد فسق ومن تصوف بلا تفقه فقد تزندق ومن جمع التصوف والفقه فقد تحقق اوكي كوجل فقه jël باي تصوف bàyyi نيك كاتور parce que yu bon yu bari da nga koy def dana ne waaj daa jàng nga fan mais kuy def tasawuf nekk ci côté tasawuf rek di ci yittewoo te bàyyi fiq bi da ngay nekk zindiq naa fekk bu mag ngay doon di yàqkatu diine ji ba pare defe ne borom ma xam bu kawe nga. yàlla nañ ci yàlla musal. mu ne nag ku boole ñaari nag kooku nag moo yell moo ne ci dëgg bi nag. ñoom dañ doon nekk imam Ahmad rahimahullah liñ toxal ci moom ci waxu tasawuf toxaluñ ko ci benn kenn ci imam yi. et cetera mais a Shaafi'i noonu moom it waxu tasawuf yu bari mais ñoom ci fiqh la gënoon a ràññeeku ku mel ni Sha imam Ahmad ci hadith la gënoon a ràññeeku ku mel ni Shaafi'i ak Malik rahmatullahi ma ci hadith ak fiqh en même temps ay imam lañ ci ñoom ñaar ci lañ gën a ràññeeku imam euh, Abu Hanifa rahimahullah ci fiqh la gën a ràññeeku même bu dee hadith tamit manoon na ko lool et cetera mais tasawuf mënoon nañ ko sokk xam nga loolu la xam nga li lay nax parfois ci téere borom xam-xamu yenn yi mooy da ngay defe ne xamuñu tasawuf parce que lu tax xam nga lu tax parce que lu ëpp ci seen temps dañuy consacré wu di jàngal nit ñi fiqh di jàngal nit ñi tawhid et cetera nit ñi nag bu ñu leen gisee ci loolu dañuy defe ne ñii xamuñu dara ci tasawuf ñii ay nitu zahir rek lañ <laughs> comprendre loolu nag day faral di am. Hmm. loolu moo tax gis ñu ci wax. donc forcément nga ne ci dara. voilà waaye xam dara. fekk du loolu. ñii nag lool moo leen daloon ñoom imam Malik rahmatullahi alayhi ñoom bon seen jamono ñoom loolu lañ gënoon a préoccupé nag ñoom imam Juray ñoom Maaruuf ñoom Bishr et cetera rahmatullah bu fekkente ne même ci xadiis ak fiqh même buñ ci aayee ci tasawuf lañ gënoon a ràññeeku nekkoon ci ay imam loolu la bëgg a wax fii. Mhm. wakkal muhaasibi ak ku mel ni al muhaasibi mhm. رحمه الله الحارث المحاسبي رحمه الله عليه لذلك نيل نيل لول مانام موم تامت في تصوف داف سي ايون والاعتقاد نيكي نونو نونو لا ايون سي خم خم عقيده عقيده باس باس تامت نون لا نيكون امام امنا نينن كوم كو ملني ا امام الاشعري امام الماتريدي ابو ابو ا ا ا ابو حكي حسن al ashari ak abu mansour al maturidi ñoom ñi ñoom ñëpp ñoo imaamu ñoo nekkoon imaam ba aqida seen jamono yi ak imaam abu hanifa moo nekk imaam ah, kii la ah, ci aqida la ak imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhim ci aqida donc is ndax ka ndax lan huwa moom al muhasibi huwa mooy awwalu man ki njëkk ki nga xam ne takallama wax na ah mm-hmm. fii isbaatu ci di saxal ak sifaatu melo yàlla yi mm-hmm. moom mooy ki ci njëkk a wax ki ci ki njëkk a leeral masala yooyu ba mu leer nag moom la mm-hmm. ci affaire melo yàlla yeeg li ci ajoog yooyu waaw ndax dafa mën a tasawuf ba pare xamul aqida moo tax nag xam-xam bi gën a jege tasawuf ci xam-xam yi mooy aqida moo tax imam as-Sanusi rahimahullah daan ne aqida mooy xam-xam boo xamante ne mooy tawhid ci xam-xamu zahir yi moom moo ci yóbbu nit ci yàlla hmm. mooy tax nit ki xam yàlla moom rek mooy xam-xam bi nga xam ne ci xam-xamu zahiri mooy tax nit ki day xam yàlla xam meloom yi xam exactement gëdd bi ñu ko war a jox xam mooy kan tasawuf non ah, ah, tawxid taw aqida waaw mais moo tax bi mu bindee aqaida sanusiya boobu taxatalaale après ci ginnaaw bi daf cee joxe moo tax mu ne nag li ma doon résumé yëpp li ma doon wax yëpp boobu léegi ak ummul baraahin da ko sara ummul baraahin après mu ne baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lañ doon leeral mooy aqida léegi comme moom lañ doon leeral baat boobu laa ilaha illallah mooy li gën a màgg la ñu mën a wax ci après nag mu joxe tariqam moom ci loolu ñoom moo tax moom tariqa boobu tariqa sanusi la yoroon imam la ci aqida mooy aqida ahlu sunna boo xoolee mooy référence mag bi waaw hidayatu subyan mom la ko Cheikh Hadji malik radhiyallahu anhu mom la jël résumé mom la jël versifier ko niki non mo wahibul Quddûs mom la seigne touba jël radhiyallahu anhu tamit versifier ko yëpp même même aqida bi la muy aqida Sanusi moy référence wa ahlu sunnati wal jamaa ci walu gogu ci jamono yu mujj waaw donte am na Jawharatu Tawhid bi mom al laqani Ibrahim al laqani rahimahullah ak yenen ala kulli haal mais ñoom mais mais ñooñu dañ daan nekk tamit imam ci yeneen côté yi ñu bëri dañ defe ne nekkuñu imam ci yeneen côté yi en ah, kay imam lañ ci yeneen côté yi mais dafa am ci luñ gën a siiwee mu ne kama kenn ni nga xam ne noonu la tuddee lii ma wax ibnul asir mooy alxaafis ibnul asir rahimahullah waay kooku ci imaamu siire yu mag yi la bokk niki noonu euh, ibnul asir waaw waaw waaw xam ne <laughs> imam bu mag a mag a mag la rahimahullah ci taarix affaire taarix lay wax waaw ci histoire en général moom lu ci lu ku ci am xam-xam la ku ci ràññeeku la ci imam yu yenent yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam et ak jamono yi mujj yi tout hmm. waaw moom ku ci ràññeeku la imam ibnul asir rahimahullah ba pare tamit euh, ci saxaaba yi radiyallahu anhum seen histoire tout ça waaw kon fi la wax ji yam hmm. muna ne qultu dama ni wa anta te yow kat taraa yaa ngi xool muna ne xoolal kayfa naka ja'alahum la Cheikh Omar wax nak rabbi yaa léegi kayfa naka ja'alahum la len defé a imatan ñu nek ay imam non ah li kulli man ñeel kep ko xamantene arada nam na ma dafa nam ma'rifata ci xam ash-shari'ata sharia allati bi nga xamne atabi'a mom la dikkee suñu sangu ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tafriqin ci lu amul benn teqantal baynahum seet diggante xoolal ni mu leen defe ñoom ñëpp mu ne ñoom ñëpp ay imam lañ mu teqantal naan kii mooy imaamu ñoom di wëkk yooyu imaamu ñëpp la wax ndax ay imaam lañ yu siiw ci jamono yooyu wa kayfa te naka yu ah, mu ne nag wa kayfa kon naka ya yu far yu farriqu lay tàqalee bayna a'immatul mu'minina diggante imaamu way gëm ñi mu'minun ku gëm yàlla aji gëm nan lay tàqalee diggante imaam yu gëm yi imaamu imaamu jullit ñi ah? waaw te kooku muminun aji gëm la goo xam ne yàlla moo xam na ne annahu li wér boobu mooy laa xukma amul benn kenn ku yelloo di tëral àtte illa allah ku dul yàlla laa xakama amul kenn kuy tëral àtte ci dëgg illa allah ku dul yàlla wa annahu ci li wér boobu mooy laa sabila amul benn yoon ila maarifati ci ñu mën a xam xukmi yi àtteem bi mooy yaa àtte yàlla illa kitaabahu lu dul xanaa téeréem bi alladi bi nga xam ne anzaloo moom la wàcce wa sunnata rasulihi ak alladi bi nga xam ne anzala moom la wàcce ilayhi jëme ci moom zalikal kitaab boobu la téere mhm. mhm. waxumaa te gis nga ñoom ñaar muy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi al ahkaam yi mboo mbooleem atte yi ñoom ñoo ko dajale mhm. li haadihi al millati ñeel bi le yoon al muhammad yéegay ko dig yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam fa maakaana lépp loo xamante ne min huma nekk na ci ñoom ñaar ñi saawitu ndi aji sax maqbulu lu ñu nangu la abadan ba faw lu sax ci alquran ak sunna dañ koy nangu ba faaw. Mhm. wa maa kaana lépp loo xam ne nag minal ijtihaad ci ijtihaad la jóge mhm. mooy effort d'interprétation bu benn imam bu mu ko mën a doon nag te te xëy def na ko waajal ci qaabilun ah ñu man koo nangu lil qabuli ñeel maanaam qaabilun luy mën a jàkkaarloo la bokk day jàkkaarloo lil qabuli ci man ñu mën koo nangu war raddu wala ñu mën koo delloo loolu rek ñoom ñu rejeté ko mu ne fama waafaqa lépp loo xam ne dafa dëppoog alkitaabu téere yàlla bi kay wa sunnati ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa maqbulun dañ koy topp bi tabiyeeti ndax topp nga mu topp lan ndax dëppoo gi mu dëppoog alquran ak sunna wa maa xaalafahu ma waaye lépp lu wuteeg ñoom fa mardu dañ koy delloo bil asalat ci cosaan ndax lan laa amul benn cosaan moo tax hmm. fa ajra loolu moo tax duñu mu kon fa akhra hmm, rawatina alfarau kon cosaan ga maanaam cosaan gi moom sikki nekku ci ne maanaam mooy cëslaa yi c'est comme cosaan bu dee fondement bi ca lañ dul nangu koy rawatina ah yeneen cëslaa yi wala boog fa ajrat ni moom day daw ci moom ba tey alfarau cëslaa yi kii branche yi ci des mm-hmm. wa ilaa hada ci kaw lool na ci moo tax ci mbir moomu ashaara moom la jundoon imaamu daarul hijra imaamu këru gàddaay ga mm-hmm. muy madina daarul hijra nga xam ne këru gàddaay ga ndax fa la yenente bi gàddaay yoon sallallahu Malik imaam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala yàlla na yàlla gërëm ko. bi xawli ci wax gi wax noonu kullu kalaamin bépp kàddu kullu kalaami faqihin bépp kàddu boroom xam-xamu fiq maqbulun def ko nangu wa mardudun te def ko delloo illaa lu dul kalaamu kàddu saaxiba azal xabru boroom bàmmeel bii sallallahu alayhi moom bu daan toog bu bàmmeelu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ci wetam ci jumaa ci jumaa ja moo tax mu naan waxu képp ku wax loo rëy rëy rëy xam-xam sa wax dañ koy nangu di ko delloo boobu des boroom bàmmeel bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la waxam moom lañ dul delloo ay lépp dañ koy nangu <coughs>